léegi nag lu tax ñu daje woon fii tey mooy que ne def nañ mémorandum bi jébbal nañ ko la préfet donc mais aussi élèves yi les amicaux les gouvernements scolaires les associations yi xeex pour les droits de, de, de des élèves les syndicalistes bawuñ kenn ñëpp la société civile tout le monde ñu ngi woon ci li nga xamante ni moom mooy marche tey bi parce que dañoo xam importance bi marche bi am parce que fii ku fi ñëw rek sa bopp nga marchal benn bi mooy que ne dañuy wax état du Sénégal ñun déjà amul benn kilifa bu ñu waxtaanul si suñu problème bi depuis daaw daaw lañ jàppoon benn marche pour def ko kilifa yi woo ñu waxtaan nañu danañ defar commission bi ba tey ren te bu ngeen xefee élèves yi bari ren jii du ñu def examen bi ñu war a def parce que registre amul woon si dëkk bi léegi ñun dañuy wax ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ñu administré muy le président de la république du Sénégal son excellence Macky Sall ñun ndaw yi dëkk Mbacké population Mbacké ñun ñoo lay ñaan ñun regam léegi affaire bi ñaan la ñun ñoo lay ñaan nga ñëw njëkk ak teraanga nga ñëw régleel ñu suñu problème bii parce que problème bi jàpp nañ ne yow rek yaa ko mën a réglé parce que ñun yow lañ wóolu woon dénk la suñu réew ñun ñu am ay problème boo xam ne Mbacke feek 10 ans pardon feek 10 ans pardon merci feek 10 ans lu ngeen xamul mooy feek 10 ans ou bien feek 20 ans ou bien 15 ans ou 5 ans ñun dootuñu amati ay cadre à Mbacké lan moo ko waral mooy que ne mënuñoo bokk si benn concours bu nekk national wala international école bi nga xamante nii moom mooy nekk léegi école bi gën a nekk excellence ci Sénégal te nekk ci suñu diwaan muy lycée d'excellence de Diourbel suñuy doom mënatuñ faa dem am na xale yu bari yoo xam ne nii at mi woon nañ ko pour dem mais lu ñu am dañoo ñëw boobu pour jël seen extrait ñu leen juddoo woo leen fi te seen bàyyi dañ leen a déclaré ci mairie mu nekk mbir boo xam ne ni sacrifier ay génération et des génération ñun ñoo jël suñu responsabilité ñun la population mbackoise du Serigne May rek de parce que moom ngeen gis ci kanam mais ñëpp la moo tax mbir mi ñu nekk mbir moo xam ne nii lu ñu soxal la lu ñu léegi nag lenn moo mën a am ndegam génn nañ wax ko sunu problème bu ñu ko réglé wul danañ gën a defaat bu gën a raw bii danañ bloqué tout le système mais lépp nag lépp nag dañ koo teg ñun si yar ak teggin ñun marché bi bi ñu ko jàppee kilifa yi nañu baleen dañoo ba parce que ñun nekkuñu ci yàq tooñuñu kenn dañoo tooñ ba pare bëgg jëlaat toor boobu teg ko suñu kaw parce que ñun ñëpp koo ci xool déclaré nga sa doom fa nga ko war a déclaré mais le problème qui se pose mooy que da ngay ñëw ñun la doom bi sa doom bi nekku fi kayitam dafa lakk wala leneen mais yéen ñëpp ngi taxaw fii yéen ñëpp Sénégal ay témoin ngeen ñaata état civil lañ fi lakk ci euh, problème yi fi amoon Sénégal mais Mbacké état civil kenn lakk ko mais état civil yi ñu lakkoon yëpp commencé nañ leen defaatal reconstruction ba seen i doomi dëkk di jotaat seen i kayit mais pourquoi pas Mbacké mais Mbacké bi nga xam ne ni dernier recensement bi nee na ñun ñoo ëpp ci Sénégal ñoo ëpp département de Dakar mais ñun ban problème la am ak nit ñi wala ñun dañoo manqué ay kilifa yu ñu man a défendre suñu cause léegi nag ñun ñoo koy défendre suñu bopp léegi nag le problème qui se pose mooy yaa benn somme bu ñuy wax ay 9000 yu ñu war a joxeek ay yu demee noonu yéen kilifa yi ngànk réew mi am na loo xam ne ñun duñ ci dugg suñu yoon nekku ci xaalis boobu ñun ñu jël ñu jël ñun di ko joxe ñoom nañ dem gëstu xaalis boobu fan lay dem ñun suñu yoon nekku si xaalis donc que ça soit très clair. Mbacké tey dund na loo xam ni ci histoire am mosu ko dund. li fi génn tey ci nit takku na takk boo xam ni ay junniy junniy junniy junniy junniy nit la te li ko waral mooy dañoo am naqar dañoo am loo xam ni dafa metti da ngay juddoo Mbàkke yaroo Mbàkke nga am naissance déclarée nga ñëw di renouveler sa extrait di ko yeesal ñu ne la nekkoo ci kàggu gi li ko waral nag mooy nee nañ dañoo yàqu wala nekkatuñ fi xoolal registre ñi jëdd 2005 nga xam ni ren ñoo war a def bac benn registre moo fi nekk kon ñooñu am na nu muy demee. bu ñu gaawul ci ñoom ren du ñu def bac te c'est des centaines d'élèves yoo xam ne ñu ngi dans cette la là li ñuy proposer toujours mooy nañ annuler mooy nañu jël mbir ñi mel ni mosoo juddu dem wuti waat juddu léegi nag yow yaa ngi nekk diggante mairie tribunal di baagante mairie tribunal mairie tribunal boo lekk boo lekk boo ñëwee tribunal ñu laaj la 9000 francs suñuy 9000 yooyu nag ñun duñ ci dugg ni ko sëñ may waxee duñ ci dugg ndax ñi ngi laaj autorité yi xaalis bu takk boobu ñuy laaj fan la jëm fan lañ koy dugal ndax population yi sonn nañ damm nañ tàyyi nañu dee nañu. bu leen kenn kenn kenn wax ne registre amul ba ngeen gëm ko registre am na loolu laa bëgg nit ñi xam ko. li ci laxasu ci suuf bañ naan registre amul loolu lañ bëgg a lijjanti mu leer bam jaral leen di yàq suñu avenir doom yi registre am na le monde fonctionne maintenant sur la base de l' intelligence artificielle archivage numérique mbàkk ñi ci raw ci commune Sénégal yi la bokk ils veulent faire table rase de tout cela nañu archivage physique ci force archivage physique su amee ñun lu ci suñu yoon lu ci suñu yoonu doom yi parce que volet 1 volet 1 mairie ko war a garder mais volet 3 tribunal a ko war a garder su réeree mairie ana bi waa tribunal yor lu tax mënuñoo génne booba ñu ne dañuy annuler suñu këyiti doom yi loolu lañ dul nangu di di récupérer ci ñun ay 9000 francs yoo xam ne non seulement xamuñ fu mu jëm mais du ñu suñu sax la traçabilité te le pays fonctionne sur la base de reddition des comptes de gestion sobre et vertueuse et de l'obligation de rendre compte ils ont le devoir de rendre compte même suñ leen ko laajut juuti bii ci marché bi su fekkee maire bi jaay naanaa képp maire bi jox ko fanweeri dërëm dina ko jox benn ticket buñ bind fanweer yi où sont les traces de ces 9000 francs là à n'en pas finir